kon ñu ngi fii mbokki taalibe yi ci jumaay Touba di waajal ndogu yi incha allah nii lay demee saa su ñu ngi nii ci conférence yi nga xamante ni moom la daayira Moukhaddamatoul ma di def maanaam ci ginnaaw tàkkusaan ba dog di waaj jot waaye bu ñu fa ñëwee fii la ñuy ñëw fii la ñuy dogoo ngeen ko mooy yokk yi nga xamante ni mooy yokk jumaa ji moo nekk nii incha allah kon nag Touba yi nii koor gaa gi nii maanaam waxtaan yaa ngi nii ndogu yaa ngi nii maam. njàng maa ngi fi Hizbu Tarqiya Baay Faal yi ndogu yi maam lépp macha allah macha allah kon daal ni ñu koy waxee rek sëñ Tuubaa moo dégg diine sëñ Tuubaa moo dégg diine yàlla nañ ci moom defal tawfeex ba ñu dégg ko waaye nag maam Cheikh moo dégg sëñ Tuubaa yàlla suñu dafa tawfeex ba ñu gën a dégg maam Cheikh Fall kon boog muy noonu kooru 1445 euh, fii ci Touba maa dëppoo 2024 jëwrin loo may wax ci ndogu yi ah ah loolu ngay joxe moom mooy tàndarma yi macha allah kon gis ngeen ko ñu ngi koy defee ñun ñëpp ñu ngi ci maanaam euh, xidma bi incha allah waaw macha allah macha allah. kon mbokk yi ñu ngi ñu baax ñu ngi ci am ndam di ñaan Cheikh Mountakha Mbacké mu sëñ Bassir sëñ ci lool ci ànd ak Baye Fall bu mag bi Serigne am Modou Mende Fall ak ban jamono Cheikh Karim boole ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi barakaatu jërë ngeen